Seydina Ousmane ibnu Affan moo réglé loolu wa kaana li yahudiyun bi'ran bil madinati yabi'u maaha dañu daan jaay ndox ma lil muslimina nekk jullit ñi rek lañ koy jaay ndax soxooree leen yonente bi moo leen jiite ebe ñun rek ñoo fi am teen bu ñu leen yërëm ku ñëw rot si rek nañ ko na na jënd na jënd ku ñëw rot si rek na jënd yonente bi mës nay dox ci biir àll di dem ak saxaaba yi ba mar mustafaane Moustapha fi mu taxaw am na teen bu ñu féetoo ci loxo ndeyjoor dama bëgg kenn ci yéen saxaaba fekk ñoom ñeenti saxaaba yi ñoo ànd mu ne kenn ci yéen na dem ca teen ba wutali ma fa ndox naka teen bi ay jinne ko moom Aboubacar dem sànni bàgg bi pour xëcc ndox jinne bi téye bàgg bi ne ko ku la mu ne ko ki gën ci mbindéef yi mu ne ko demal du fi naanee Aboubacar jéem mënul am ndox mu dellu ak loxo yi neen moo lay wan ni saxaaba yi ku ci nekk ak mayam Seydina Omar li muy bëri bëri doole keroog dem na ca teen wa mënu fa xëcc ca ndox Seydina Ousmane ak sam ñëw mu sëpp ci teen bi di waaj a mënu faa am ndox jinn bi ne ko dellul mais Seydina Alioune ibnu Xattaab Alioune ibnu euh, Abu Talib karramallahu wajha ba mu ñëwee sànni bàgg bi jinn bi dafa ne yow a ne ko man la jàmbaari góor yi àggaguñ ci Seydina Ousmane jinn bi téye bàgg bi ne ko kafaaka rabbuka kam yakfika waakifatan allin ne ko kaf kaafuha kakimiinin kaana min karakin ci waxi jinne mu ne ko yakurru karran ka karril kaafi fii karakin allin ne ko yaxkii mu saksakatan kulukulukul fuluki bi ka kam kaada yaxkii kaw fuluki moom la Serigne Touba way ci téeram Seydina Ali na ko bind ca téeram keroog ba muy dajal jinne ya taa ci biir teen boobu xa xeex ak jinne yi juróom-ñaari at ñoo ngi ko bind ca téera ba àgg buñ ci àllin àllin jàmbar la boo xamante ni dëgg-dëgg jàmbar la waaye sutul ñii ñu ñëkk jóg romb rek mukk Ousmane Ibnu Affan keroog ba mu ñëwee dafa ni jaay leen ma teen beneen xaaj bi yéen bu ngeen rootee ñaari fan ñun ñu root ñaari fan yëgoot yi ne amoo njëgam ñu xaj ci njëg bu sori Seydina Ousmane jël alal fay ko jënd xaaju teen bi yëgoot yi ne kon ñaari fan ñun ñooy naan ñaari fan yéen jullit yi nee naan yéenay naan Ousmane ne suñu ñaari fan nag yi déy ko ne ko defal suñu ñaari fan na yëhoot yi naanaale Moustapha déy ko ko ne ko suñu ñaari fan yi na yëhoot yi naanaale nañ leen ma mayaale parce que dara la waaye ci loolu lañ leen meebee ba jàpp leen ñaari fan yiñ leen may ñuy naan si ba ci yàgga ñu ñëw bis li ñuy caay-caay dañuy seetlu ñu ñëw bis du di naan si ñu ne ayow ah, ñu tey de te ñoo ngi naan si ñu ne ah jullit ñee ñu ko may nañ naan ñu taxaw ci pindi teen bi di naan nandal ba ci yàgg am ku ku yëngal boppam ci yahut yi ne dëgg-dëgg ñun ñoo bon <laughs> yéen seetluwee leen ci ñii ñii li ñu def kenn bu ñu bokk bu ñu ayee ñun rek fii ne taxawaan ñoom bu ñu ayee ñu naanaale yéen ñii ku leen topp du naan ci kawsara <laughs> ëllëg Seydi Hadji Malick ne kawsarun xad xassaha allahu kawsaran bihi yantafi xadilu yowma alqiyamati Maodo nee na teenu kawsar ëllëg ñi mar maru xonjal yépp fa la ñuy naanee ngir bëgg a man di ëllëg yowma alqiyama Maodo ne kaas ya sax na mu mel xam naa ko teenu kawsar wa kiisaanuhu misla alkawaakibi waaw mu ne kaas ya comme biddiw ci bëriwaay yi teenu kawsar wa kiisaanuhu mislal kawaakibi saqaana allahu yàlla nañ ci yàlla nandal ëllëg yawmal qiyaama Maodo ne biddiw yi boo xoolee ci kaw li ñuy bëree kaase noon la bëri Maodo ne ne man ko tubbee ci alquran yatuufu alayhim wildaanun muqalladuuna bi akwaabin wa abaariqa wa kasin min madinin mbokk yi koo koy Seydina Ousmane Ibnu Affan nañ ko yemale foofu guddi ba noppi yal nañu yàlla defal jàmm thème bi jeexul waaye foofu lañ koy yemale yàlla yal nañu yàlla defal jàmm eh, sang bi nee na mu gaaw rek ñu jeexal ko waaw Seydina Ousmane ibnu Affan eh, teen boobu keroog noonu la naxee gaaya wa fi muddati xilaafatihi Seydina Ousmane kaanat al aqtaaru islamiya xad kasurat eh, tabaan li kasrati al futuhaati wantasarat al muslimuuna fi fi fi lqaa'iha wa kaanu yaqra'uuna al qur'aana bi lahjaati arabiyati Seydina Ousmane ci jamonoom ci xilaafaam gox yi ko tiimoon yépp niñ doon jàngee alquranul karim mu xaw a jaxasoo lool ci jàngin ba ndax bëri ay fataaxaat li yi ñu doon def ci jamono jooja ñu tasaare ko ci jullit ñi alquran bi niñ ko doon jàngee ci jamono jooja ni muy demee am yu ci xaw a réer am yu ci xaw a demee ne le Seydina Ousmane dajale gaa yi ne jot na sëkk nekk ñu dajale alquranul karim moom la Maodo wax léegi laqat jama alqurana ci bayit yi ma romb ca kaw mu ne kon nañ ñu woowal fóore yi nga xamante ni ñoo gën a mokkal alquran ñu ñëw dajaloo kenn ko ci nekk li nga mokkal nga yulli ko ñu dajale alquran ndax jullit ñi dinañ ko soxla ëllëg ba sërif Ibrahima ay dara toog ci xadaraam di ko firil gaaña kon nañ ko dajale Ousmane ibnu Affan radiyallahu anhu daa Zayd ibnu Saabit mu woo kooka bokkoon na ci kàngam yi mokkaloon alquran wa daa maahu abdullahi ibnu zubayr mu woo ko bokkoon na ci kàngam yi mënul alquran wa said ibnu lxaas wa abdurahman ibnu lxaaris ibnu xisaam wa amarakum bi an bi an yansaqu sittata ila makkata almukarrama walbasara wa kuufa wa dimas wa xafida musqafayni Ah, euh, Ousmane Ibn Affan woo leen ne leen ku ci nekk yu yullil la nga am ñu dajale ko ngir ñu mën a dajale alquran keroog ñooñu gi ñu toogee kenn ku ci nekk li nekk ci sa bopp nga yulli ko sa morom gàgganti la mooy li sang bi doon wax léegi waa ji demal ci imaam Lamine Sakho mu gàgganti la aayut loolu la. ku ci nekk loo yulli rek sa morom bu d'accord mu ne waaw masque boobu d'accord nañ ci noona waaye li ko mëttali ba masque yëpp tegu ci yoon ak tomb ya. Ousmane bi mu koy liggéey tomba ya duggul woon masque ya waaye dajale na alquran masque ya tomba yi taaliba sayiduna allin moo ko ci indi benn bayit la ko Maodo way ci nuuni walil xujjaaji wa dawali yu nuqtun wa saqlun bil qurani benn bayit la ko Maodo dënk ca nuuni ya Hajjaaj ibnu Yuusufa moo tomba alquran moo ko maas moo tax keroog bi ñuy wax fële ca Morola gars yi naan bida bida bida bida suñu mbokk yooyu ma ne leen tàmbali leen alquran ndax ginnaaw yonente bi lañ ko tomba maas ko kuy weddi njëkkal weddi loola bu dee lu xew ci ginnaaw yonente bi bida la nañ dem ci alquran Seydina Alin moo xool ci jamonoom ci mujjantulu xilaafa Alin la Alin ne waa côté Saam ak côté yi ñu jege ni ñuy jànge jàngee alquran bi neexul nañ ko defaraat keroog la Alin ne unzur haada nahwa baatu nag wa boobu la ñu jël tëgg ko muy grammaire àllin ne parce que masque yi war a dem ci suuf ak yi war a dem ci kaw gaa yi dañ koy jaawale mu ne yi war a jëm ci suuf yëpp ñu teg ko ci kaw àllin ne nañ ko defaraat keroog la àllin ñëw ñu tomba alquran mas ko ki ko tomb mas ko taaliba sayidina àllin ibnu abi taalib karamallahu wajha te àllin mënoon ko def waaye taalibam la ko jox mu def ko moo tax sayidina Ousmane dajala alquran boobu ci kàngaam yooyu keroog xutba bi mu mujjee xutba moom sayidina Ousmane ibnu Affan mu door a dem bàyyi gaa yi amma baadu fa inni qad xamaltu waxat xabiltu mu ne naa ba maa yeen nekku dëgmal naa fa nga fa ma nar a muy fekk ji sayiduna Muhammad waaw saxaaba yi ku ci nekk boo doon dem xam nga fi nga jëm mu aju ci li sang bi doon waxtaane léegi ci alxaaji abdul aziz si dabbaax moom ba mu doon dem xam na fa mu doon jëm ndax bi mu jógee eh, li may wax sang bi moo ma ko gën a xam foofu waaye damay wax rek bu ma ci juumee mu dimbali ma ci loo waxul ci kanamu ki ko xam doo mës a juum ba ñu gàgganti la te boo juumee feneen ñu gàgganti la mooy gën a ruslu eh, mu ngi ànd ak eh, mm, alxaaji Pape Maxtar Kebe ak Serigne Maodo doomam ñu jóge Màkkatal Mukarrama jaar Maroc biñ jëleetee vol di ñëw ci senegal la ala jàpp du ne dégg ci biir avion bi di taalif waayam naan muunaaka xat xusta haazal yowma busraaka abdul aziz fa inna allaha aataaka ma kunta tabri min zulfin wa min niamin fahmadi rahmani tuubaaka xoolal xeex yi ci mom la dellu te yëgu ko Pap Maxtaar di bind alaji di wax naan muunaaka li nga doon mébéb yëpp yow alaji abdu xat xusta làkk nga ko al yow ma bis ni ki nga lépp al yow ma akmaltu haasal yow ma busraaka mbégte la mbégte rek moo la ñeel yow Dabakh Malick ndax dund nga li nga war dund ba mu sa lépp sa rafet la te yaa ngi wuyu ji sa borom nar faa fekk di teranga bu bëri kon busraaka mbégte ñeen na la yow Dabakh Malick ak xusta haasal yow ma busraaka Abdul Aziz yow jaamu yàlla ji yow ku sell kii yow ku tedd kii fa inna allaha naka yàlla mi may lépp te am lépp ci loxom ataaka moo la may li nga am te mooy wax ak boppam moom Alaaji Abdu mais booba moo ngi tàggoo sëñ mow nee na ci biir avion bi la toog moo ko nettali sama way jur oustaz Mouhamadou mbay mu nettali ma ko mu ne góor gi nee na ma ci biir avion bi la ñu toog avion bi di daw ba ci yàgg góor gi ne Pape Makhtar mu ne ko labbayk mu ne li ngeen bindoon sànq xotti leen ko bu mu àgg senegal que bi mu paree wàcc ci xaal bi mu nekkoon la xam ni li mu doon bind keefu mu xaatab yépp ci moom la dem te alaaji abdu mësu koo bëgg ndax yuhibbuna kullu man saqat basiratuhu daanu ko way te moo ko taalif mais bu doon firi da daan tàmbalee lillahi qawmun ida xallu bi manzilatin xalla nada wa alat fi l jawwi anwaaru tastaaquhum kullu ardin yanziluuna biha ka annahum li biqaa'i l ardi ansaaru foofu la daan tàmbalee mais yuhibbuna dinañu sopp kullu man saqat basiratuhu ku am gis-gis boo xamante ne yàllaa ko def ci sa xol boo gisee ku sant si sopp ko bu ko waxee dóora la boppam baaraam moo tax daanu ko firi arbaatun muhlakatun lil abdi ana wa nahnu summa lii wa indi moo tax ala jabdu daanu ko def hat usta aadal yowma busraaka abdul aziz fa inna allaha aataaka maa kunta tabagi li nga doon sàkku yëpp yàlla may na la munta tabari min zulfin wa min niamin ndëxañteef booy yóbbaale ci yàlla ak xéewal booy bàyyil gars yi lépp yàlla jox na na ko fahmadi rahmaani yaa dem waaye santal yàlla moo la ñeen yow daf baax maali tuubaa ki na la tuubaa ka pexe na la yow daf baax maali xoolal boobu tàggoo yal nañu yàlla defal jàmm defal ko bépp mboolam jullit tàggoo boobu la Seydina Ousmane tàggoo gaa ne maa ngee dem waaye di leen bàyyi li fi yonent bi bàyyi waaye maa ngee wuti ji sang yu tedd yi ca biir bàmmeel loolu la Ousmane demee fa tabarakallahu sang bi ñoo ngi jéggalu bu baax a baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu préparé nag Seydina Ali karamallahu wajhah wa radiya anhu ajjuma bii di ñëw bu dellu si ndax yi di ñëw niñ ko waxee ñun ñëpp ñu nga ca ci heure bi incha allah ñaar rek laa ciy li mooy bi njëkk a wax moo di kersa kon ku ne na royee Seydina Ousmane am kersa rawatina jamono bii ñu nekk nga xam ne kersa jeex na koo ci wax lam lay njëkk a wax mooy sànni loxo wala daggal law saaga wax la wax yu ñaaw te doo ci mën dara nit ñi kersa amatul kon nañu roy Seydina Ousmane ci kersa kersaa ko may mu dem a dem a dem ba yàlla rus ko yàlla mi ko bind ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Seydatuna Aïcha moo ko ko wax moo ko ne yow li tax bu sama baay ñëwee defar wo te ñi Ousmane nekkee sa goro la nekkee sa goro ndax a la may Seydina Aboubacar sa goro la ndax may na la a la may Seydina Omar mi sa goro la nax maa ngi wujjeeg Hafsa ñoom ñaar ñëpp ñu ñëw bougé woo lu tax Seydina Omar Seydina Ousmane ñëw nga jóg defaru toog mel ni nga war ñëpp mosta mel nu jaaduwul waaye gën a jekk-jekkal mu ne ko Aïcha mu ne ah mu ko ku yàlla rus man ki yoon ni nu may def ba du ma ko mu ne te yàlla ma wax ne dafa rus Ousmane te moo bindu Ousmane ma ne dafa rus Ousmane bindu Ousmane loolu loolu cër la te nit mën na ci yegg kat ndax boo ci boo reyu Seydina Ousmane doo doon moom waaye mën nga am ci barke lu mu amuloon moom ndax ñu ñu ngi am ci barke yonent bi lu yonent bi sañse yi ñuy sañse yonent bi daaw ko sañse lekk yu neex yi ñuy lekk daaw ko lekk oto yii ñuy dugg daaw ko dugg waaye ci barkeem lañ ko am ci barkeem lañ ko amee kon nit mën na am ci barke kilifaam lu kilifaam am kon kersa la ko ko may mooy li sëñ Sidi Ahmed wax mosul gis awraay boppam ndax kersa awray boppam mosu ko gis na kersa dund na ba génn àddina mosul gis awray boppam ma awray jàmbur kon nañ ko roy ci loolu beneen bi mooy li Oustaz Sidi Ahmed wax dajale gim dajale alxuraan rek doy na sëkk su moom jàpp xam gis nga loolu muy wax mu ngi déparé ci inna allaha bariun min al mushrikina wa rasuluhu gaa yi dañ ko daan yàq Seydina Seydina Ali ne nañ ci taxaw gaaw inna allaha bariun min al mushrikina wa rasuluhu boo looloo tax Seydina Ali indi grammaire ci biir alquran ndax boo ko firee ni mu tëddee rek yàlla génn ci yow da nga naan yàlla génn na ci yéefar yi génn na ci yonent bi hmm. eh, te du noonu inna allaha bariun min al mushrikin da nga naan inna allaha naka buur yàlla bariun ku déñ la ku génn la min al mushrikin ci yéefar yi waaye wa rasuluhu moom it ku génn la ci yéefar yi gannaaw yàlla génn na ci yéefar yi waaw waaye boo ko toftalantee rek wax musiba sew sew la inna allaha bariun min al mushrikin wa rasuluhu looloo tax Seydina Ali indi grammaire waaye gannaaw bi ko Seydina Ousmane dajale boo nee yàlla génn na ci yéefar yi génn na ci yonent bi musiba am da nga naan inna allaha naka buur yàlla ku deñ la génn na ba set wecc minal mushrikin na ci ci yéefar yi waaye wa rasuluhu ndawam li it génn na ci yéefar yi ba set wecc ndax yàlla génn na ci Seydina Ousmane nangoo ci jeexal tabe moom kenn mënu la ko moo ko mayoon alal ji mu am tabe ndax li Alaaji Abdu daan wax ne nit ñaa ngi daw feebaru ñàkk te ragal pikiiru joxe rek la ndax nit ñi dañ yaakaar ne boo joxee jeexal waaye booy joxe di am booy joxe di am kon Seydina Ousmane denc ñaari doomu yonent bi rek doy na sëkk loolu it dafa denc ummu kalsum mu génn àddina yonent bi jox ko roqiya mu génn àddina yonent bi ne ko suma amoon yeneen ba muy fukk ma di la ko jox doonte dañuy dee par benn loolu moom rek ko ci am daf ko may kii mu faatu mu may ko keneen ki mu faatu yonent bi ne ko suma amoon keneen di la ko jox ba ñuy fukk ku yàlla cëraloon la moom Seydina Ousmane xoolal li cëram bi di rëy rëy moo dajale alxuraan waaye mokkalu doon alxuraan te itteem moo ko may mu dajale alxuraan bokk na ci bi mu koy dajale lii oustaz si di wax ku ñëw di tari daf la naan waatal loolu ñëw rek tari ñii ne déedéet daf la naan waatal nga ne billaahi wala nga ne wallaahi wala tallaahi maa dégg yonent bi waxee ko nii mu ne la ñaata nga ci mokkal nga wax mu ne la tari nga tari mu waat sa morom mu tari kem ni nga tare ñu door koo bind <laughs> léegi la neex rek nga naan ratatatatatatatat waaye ratatat bi balaa nga cee jot moo tax bu ñuy rey nit ñi ak dëgg-dëgg nag biddaa biddaa biddaa alxuraan yi kañ mooy premier biddaa buñ ko bàyyi woon ñi ko yónnoon ci biir indee woon kenn du ko jàng ci biir ndax kenn mënu ko xam amuloon chiffre abajana bii gannaaw yónnoon ci bi lañ ko créé <laughs> wala déet yónnoon bi kañ moom boo bindoon turam sax xamu ko kon <laughs> bidaa nañ ci tey bidaa bu rafet ak bidaa bu ñaaw nañ ci loolu fa la mbir mi nekk bu rafet dañ koy roy waaye bidaa bu ñaaw na kenn du ko roy te yii yëpp ay bidaa yu rafet la ah, ci la ñuy sukkandiku nag ba jël suñ tarixa yi la def ko ay bidaa tarixa bi bidaa waaw ah, kon nag fa tabarakallahu jërëjëf oustaz Sidi Ahmed ñëpp bëgg nañ waaw ah, Seydina Ali moom la ñuy dugg incha allah waaye Seydina Ousmane jaraw lakk ci tabeen ci xam-xamam ci kersaam ci lépp xam nga yonent bi xëy di ñaan di ñaan di ñaan gon gannaaw gee di ñaan ba fajar xar te ñaari baat rek la doon wax yàlla yal na nga yërëm Ousmane yàlla yal na nga jéggal Ousmane soppiwul yàlla yal na nga yërëm Ousmane yàlla yal na nga jéggal Ousmane yàlla yal na nga yërëm Ousmane yàlla yal na nga jéggal Ousmane gannaaw gee ba fajar moom la bàyyi bu saaba daan wax ne ah mu finance baax na finance ko may Ousmane waaw finance mu ne finance baax na de moom may Seydina Ousmane yonent bi di ko ñaanal gannaaw gee ba fajar moo tax mu ne daan na ko wax moom bàyyi bu saaxo mu ne finance dina génne ku nekk sax ci biir kaso ñii financé di fay avocat di financé di fay avocat bañ bàyyi ko mu ne finance baax na de a mu ne benn xale daa ñëw ci man ne ma papa papa alal baax xaalis baaxul ma ne ko yaa mën kaj xaalis bu bonee rek daa nekk ci loxol ku bon waaye xaalis a baax bu nekkee ci loxol ku baax maa bàyyi saaxo moom yàllaa ko mayoon ne ko yaa mën a kàcc xaalis a bon bu nekkee ci loxol ku bon waaye xaalis a baax bu nekkee ci loxol ku baax loolu may Seydina Ousmane yonent bi di ko ñaanal ba fajar xat soppiwul ñaan yàlla yal na nga yërëm Ousmane yàlla yal na nga jéggal Ousmane yàlla yal na nga yërëm Ousmane yàlla yal na nga jéggal Ousmane gannaaw gee ba fajar loolu du lu tuuti dañ ci ñaari doomu yonent bi yàlla mi ko bind am ci moom kersa kii ku ko bëgg a gàkkal kuy set ah kenn dootul set ci kaw kon nag yal nañu yàlla taas ci barke yal nañu yàlla may seeni leer yal nañu yàlla yëgal ci ci seeni daraja yàlla bu mbokk mukk ci ñi leen di diinga yàlla nañu doy ñi leen yónni ñi leen yónnanti bi doy loo woon ñu it yàlla nañ ñu doyee noonu suñu sëriñ si fi baax si fi nekk yépp niñ leen doyloo yàlla nañ leen doyloo ñoom ñun am nañu roy waay yu rafet suñ sëriñ yi liñ bind ci saxaaba yi kenn bindu waaw ah, kenn bindu ko boo demee ci Baye Niass boo demee ci Maam Borom Touba ba koo ci dem rek di nga bind fekk mu bind ci saxaaba yi loo xam ne ma àjjuma bi passé gis ngeen sëtam bi fi ñëwoon bi may waxtaan mu génnee li sëñ Tuubaa bind ci Seydina Omar mag ñëpp dañ fonk saxaaba yi kon ñun nañ leen ci roy ah, te xanaa xamoo ne am na tawasul yoo xam ne boo jaarul ci saxaaba yi yàlla du la dugg ah, na tawasul eh, ñi dañuy font am na tawasul yoo xam ne boo jaarul ci doomu yonent yi yàlla du la wuyu am na tawasul yoo xam ne boo jaarul ci saxaaba yi yàlla du la wuyu am na tawasul yoo xam ne boo jaarul ci yonent yi yàlla du la ndax yàlla dafa am ay connexion yu gaaw moo tax bi aadamin wa idrisin wa yunusin wa huudin wa yunusin boo gisee mu indi foofu du foofu rek la indi lu tax mu ne bi aadamin wa idrisin wa huudin wa yunusin wa luutin wa nuuxin summa xaawil li xullati wa daawuda yaquubin suleymaana yuusufin wa ishaqa ismaila ilyasa junnati wa musa wa haruna wa ayuba wal yasa wa zil kifli wa yahya summa isa wasilati kazalika zakariyau wa suaybun wa salihun taqina rada daarayni min kulli wahlati gis nga min ali bayti l Mustafa jamu chamlina من آل بيت المصطفى جمع شمل لأصحابي كشف شدائي مهبتي دارين نك بأقماء بدر يا إلهي وسيدي am na foo xam ne boo fa jaarul yàlla du la wuyu sax yàlla du la wuyu sax am na ko gis ah, ñii boo leen fi bàyyee yàlla da dul wax ak yow da naan la demal fële man ñi ma am mooy ñii boo leen considéré wu yëgu ma nga bëgg a naan naan ñu kenn du leen tudd lu tax kenn du leen tudd am barke ku bëgg barke da ngeen di wa illa doo am barke tawassul yooyu du jaaxaan du jaaxaan yal nañu yàlla xam loo boppam rek yàlla newul fenn lu ci nit ñi booy jeex yàlla jeex ko ci biir ni ñi newul arash newul mu la malakut mu ngi fii ci biir ni ñi ñi nga mel ci nit ñi la mel ci yow ñi nga toll ci nitam yi la toll ci yow ne boo koy natt asamaan rek daanu mu ngi fii ci biir nitam yi la nekk ngay jéem asamaan gi xool aras aras mooy yow kursi yu mooy yow malakut mooy yow yàllaa ngi fii wa fii anfusikum afalaa tubsirun yàllaa ngi fii demut fenn ni nga toll ci jaama mi la toll ci yow ni nga mel ci jaama mii la mel ci yow boo sori mu sori boo gàttee mu gàtt boo demul mu toog moo tax xale yi di wax dëgg la demoo fenn doo dem doo dem wax nañ dëgg doo dem feeg ni nga war a mel ci jàmm mi nga xam doo dem fenn waaw fenn nga du dem ah waaw sa nuri sa nuri sa nuri sa nuri ah sa nuri mu ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu alhaq yàlla ñu yàlla xam loo ko yàlla ñu yàlla suturaal yenn ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci sa taxawaay ci kanu Serigne Souleymane ak ci wetam dara umpuñu ci ñu ko imaam la ñuy saako yàlla suturaal ñu ñun ñëpp rek yal na ñu tedd fi dunya wala axira yàlla bu kenn jooy dara yàlla bu kenn ñàkk dara ceeb na jàll.